ñu ngi gërëm bu baax journaliste yi nga xam ne ñoo fi teew di gërëm ndaw yi fi toog di dalal suñu xel di gërëm bu baax tamit ñépp ñi nga xam ne ñoo fi ñëw wuyu suyu si suñu point de presse bii nga xam ne tey moom la ñuy def waa cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yaakaar di dellusi si dogal gi nga xam ni moom la suñu njiiti réew son excellence monsieur le président Macky Sall jël ci woote gi mu woote bëgg démb ci conseil des ministres bi nga xam ne gouvernement ba moo fay daje ci dogal gi mu jël si indiwaat jëwriñu mun naa ni bu njëkk ci gouvernement bi mooy premier ministre dellu si di wax ni dogal boobu ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar dañ koy rafetlu di ko ko nangul di ko si wax tamit jërëjëf parce que tamit ndogal bu mucc ay la ndogal bu rafet la ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi naqarlu ba fa naqar yam ñenn ñii nga xam ne ñooy jël ay baat yu ñaaw di ko teg ci ay kilifa diine di ko teg ci ay kilifa aada di ko teg si ñi nga xam ne ñooy ay magistrat ñi nga xam ne tamit mun nañu wax force de l'ordre ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange askanu Sénégal parce que nag loolu dafa doon li nga xam ni mun naa ni ah lu bees la si mim réew te ñun coalition bi ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax di ko massaw tamit waa Sénégal mun naa wax tamit ni ñun dafa am ñenn nga xam ni moom lañ ñu yare sénégalais mooy rafetal wax kàddu bi nga koy sàmm na tamit nag jëfiñ bi ñu koy xoolaat parce que ku xool suñu président muy son excellence Macky Sall gis nañu jël na réew mi ci dal jël na ko ci teggin jël na ko ci yar loolu tey moo reflété ci képp ki nga xam ne yaa ngi ànd ak moom muy góor jigéen mag ndaw njuuma yooyu nga xam ne ay tàppet lañu ay ragal lañu moo tax ñuy bañ a dem di wuy ji foog naa ni <laughs> fa mbaxane doonee benn tiit moo tax kuñ si woo nga woote xeex nga woote xuloo mën naa ni bëgg a dëpp xelu xale yi donc damay wax ni tey ñooñu seeni pexe du mës a àgg ndax tey fi réew mi toll la ñoom suñu sañoon ñooy nekk seen attekatu bopp ñooy seen juge bopp ñooy nekk seen magistrat bopp mais nag fii Sénégal nag démocratie moo fi daw ñun xamuñu lenn li nga xam ne day tënk suñu réew te duñu nangu kenn ku ñu dënkal suñu réew ñépp si mim réew xam nañu ñooñu ñooñu duñu ay royukaay république gëmoo démocratie faalewoo constitution kooku foog naa ni ñooñu war nañu diital réew ñooñu foog naa ni dalal ñu benn xelu ñoo ñu foog naa ni dalal ñu benn xelu kilifa ñoo ñu foog naa ni dalal nañu benn xelu yaay yi nga xam ni sax ñoo nekk ci biir kër yi parce que nag bu ñu fàtte mars li am ñi ko fi indi xam nañ leen tey li nekk seen ndodd ci mois de mars bi moo tax ba ki dem moo njaay ba ñu wootee kenn topp leen ñu am échec échec total désaveu total de askan bi ñun nag lu ñuy wax mooy la coalition benn Bokk Yaakaar lu ñu gën a amal njëriñ mooy tey dañoo nekk ci élection territoriale dañuy jëm ci campagne gox goxaan dañuy woote jàmm di woote salaam di woote dal te tamit nag képp ki nga xam ne yaa ngi si biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñun de suñu tëddee nelaw parce que élection ñu jëm jàmm lañ si nar a demee ak dal lañ si nar a demee di wax nag di woote unité autour de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ndam bi tamit nag suñ ko amee du ndamu kenn mais ndamu ñëpp la beneen bi tamit mooy ci tëjal. bu ñu fàttali tey poste bi nga xam ne mooy poste premier ministre suñ ko indee teg ko dafa am si li mu tënk parce que tey mun nañu si ñi nga xam ne ñoo ñu wër wër Sénégal aspect sécuritaire li nga xam ne mooy feebar bi lëmbee jamono ji la crise sanitaire bi am. contexte géopolitique bi tey looloo tax son excellence suñu njiiti réew suñu kilifa tënk poste premier ministre bi pour delloo si ko waat pour restaurer ko maanaam si yooyu la ko teg mais tegu ko si lenn lu dul si fulla ak fayda rek donc ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di wax vive le président Macky vive la coalition Benno Bokk Yaakaar vive la jeunesse vive les femmes merci à Thank you.